sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala wa ashaabi ajmain mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar ci weeru tedd wi nga xam ne ci lañu nekk di leen ci ndokkeel bu baax a baax di ñaan sunu boroom mu nangul lu mbooleem jàmm yàlla yépp te fulal lu ko te mbooleem ngëneel yi nga xam ne digge na ko ci mu defal na ko ci ak mbaaxam di ñaanal sunu kilifa ko tedd gi Cheikh Mouhamadul Muntaxa sunu boroom gën ko fee yàggal lool te mu ànd ko wér ni nga xam ne noonu la ko daayira Muxaddamatul ma baaxoo te mooy di dundal weeru koor yi fii ci jumaa ji ci ndigalul sëriñ bi di ànd ak nun ay bind yu ama am solo yoo xam ne day aju ci sunu diine ak sunu dunduin ngir ñu dundale ko weer wu mag wi nga xam ne ci lañu nekk ak barab bu tedd bi nga xam ne fi lañu nekk nu fas yéene ànd ak yéen tey ci beneen bind boo xam ne day aju ci ñaar yépp day aju ci sunu wàllu diine waaye day aju ci sunu wàllu dundiin muy taalimul mara maqaasidun wa asaaru njàngum jigéen ñi ak ay jubluwaayam ak jeexeet yi nga xam ne mën na koo def ci société bi ku nekk xam na ne société moom ñaar rek ñoo ko seq muy góor ak jigéen jàng itam di loo xam ne farata ci ñëpp talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima li nga xam ne moo tax sunu borom bind nu itam nu war a ko fee nekkee war a jagal àdduna bi góor ak jigéen la ci sunu borom yamale kon ni ñu yittewoo njàngam góor ñi noonu la war a yittewoo njàngum jigéen ñi nu war cee diglu war cee ñëw tey indi ci bind yu am solo ngir ñu gën koo bàyyi xel ndax ku nekk xam na ne ni ñu fonke njàngum góor ñi dese nañ ko fonke njàngum jigéen ñi am na ñoo xam ne gannaawal nañ ko lool te ku nekk xam na ne góor ak jigéen ñoo ci bokk yem rawatina ci dëkk bu tedd bii ak barab bu tedd bii defe naa ne ñun ñëpp dégg nañu laaj boobu nga xam ne sëriñ bu mag bi laajoon na ko sëriñ ba bàññi njaay ci soxna su ma ko doon laaj ak njabootam ba koy laaj ndax am na ca jigéen mu ne ko waaw mu koy laaj ñaata wat ñaata at la war a am mu ne ko day bu doon góor dee war naa toll ci jàng sëriñ bi ne ko ba muy jigéen nag kon tomb bu am solo boobu lañu fas yéene ànd ak fadilatul ustaas eh, sëriñ cheikh maxtaar di boroom xam-xam bu mag boo xam ne it yëngoom yëpp ci jàng ak jàngale ak gëstu jëm di jàngalekat bu mag waaye di inspecteur koo xam ne yaakaar naa kuy topp jataayi xam-xam yi ak barabi xam-xam yi da ko miin bu baax a baax nu fas yéene ànd ak moom ci tomb bii ngir mu jàngatal nu ko nu mën cee jariñu bu baax kon fadilatul ustaas euh, noo ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal tawfeex di la jox kàddu gi asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu أعوذ بالله من walsalaatu waltasliimu ala mustafaahu alamin wa ala aalihi wa saxbihi cummi alcaraanin wa ala man iqtafa aathaarahum wa tabicahum bi ixsaanin ila yowmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu mbokk yu tedd yi fi teew maa ngi leen di nuyu nuyoob lislaam bu sell boobu te di leen tatagal te di leen ndokkeel ci weer wu màgg wi ñu nekk di jiital ci nuyoo bi rekk ak ziyaara yi saaxibul fadila al sheikh muhammadun al muntaqa xafidahu llahu wa di ñaan suñ boroom yokk aw fanam ak akuk wéram ba mu àggale naali lislaam yu rëy yi mu naal te ñu ànd koog moom di nuyu rekk di ziyaare al imaam sëriñ aafiya buso mi nga xam ne mooy jëwrini daayira bii di muqaddamatul xidma di ko ndokkeel bu baax ci taxawaay yu am solo yi nga xam ne daairatu muqaddamatul xidma mi ngi koy taxawe ci weeru koor gi waaye ci yeneen jamono te lépp rekk jëm ci tasaare njàngalem sëriñ bi ñu ngi koy ñaanal yàlla gën koo dëgëral mook ñi mu àndal ba taxawaay yu am solo yi nga xam ne dañ cee wuutu mboolem jullit yépp rekk yàlla di leen ci yokk ay ndam yokk leen ci tawfiq euh, ni ko mbokk mi waxe nag daayira bi ni mu ko baaxoo def rekk bu koor gi ñëwee muy tànn ay tomb yu muy waxtaan ak mbokk yi di ci dundal koor gi waaye di ci dundal barab bi ci loolu rekk la sàkk woon ci ñun ñu teew fi tey ngir waxtaan ak yéen ci tomb bu am solo bi nga xam ne sëriñ bi junju na ko léegi muy laaj lu aju ci xamal jigéen walla jàngal ko jàngal jigéen walla xamal ko yan jubluwaay la am ak yan jeexit moo ci mën a tukkee muy tomb boo xam ne nag tomb bu du xeewi la ndax li mu aju moo tax dafa jàng dafa aju ci jàng te jàng moom du xeewi waaye aju ci jigéen di kenu bu dëgër dëgër ci kenu yi nga xam ne moo taawu société bi jigéen yàlla daa dogal mu bokk ci kenu yi gën a dëgër ci taawu njaboot waaye di taawu ab société daanaka mën nañoo wax ne sax mooy genn wàllu société bi ndax beneen genn wàllu bi di góor ñoom ñaar ñoo ko séq ñoom ñépp di ay doomu aadama yoo xam ne suñ borooma leen bind wàccee leen ci suuf sant leen digal leen tere leen jigéen nag mooy doon yaay niñ ko xame jigéen mooy doon soxna mooy doonub jàngalekat mooy doon yarkat waaye rawatina ci e, jamono yu njëkk yi nga xam ne ci la doomu aadama bi di gane àdduna jigéen mooy njëkk ci moom waaye mooy njëkk a jonjoo jàngal ko ak yar ko te ku ne xam na jamono jooju ni mu amee solo ci dundub doomu aadama muy jamono yi mu doone ndaw ndax lu fa xew rekk day jeexital ci yeneen jamono yi ñëwaat ci dundam ci kaw loolu nag lañ mën a xame ne kon kiy jonjoo jàngal nit ki ak yar ko ci jamono ji jiitu ci dundam kooku mat naa waajal lool mat naa taxaw bu baax a baax ba solo wala liggéey bu am solo boobu ñu ko sant mu mën koo def ci anam gu mucc ci ayib waajtaay woowu nag niñ ko xamee dara jiituwu ci waajal ko ci wàllu xam-xam ndax ku ne xam na ne àq yi nga xam ne warees na ko jox doomu aadama bi moo xam muy góor moo xam muy jigéen mooy àqi xamal ko jàngal ko ba mu dañ ak réer euh, lislaam nag dafa def xam-xam walla sàkk ko muy farata talabul ilmi faridatun ala kulli muslim loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax baatu muslim boobu nag dañ ciy déggewaale muslima ndax ginnaaw dañ koo boyal te tënkuñ ko ci dara te gisuñ lenn lu ko tënk moo tax ñu ne kon bu nee muslim rek muslima ma nga ca biir euh, kon jigéen dañ koo war a jàngal ak xam la dañ koo war a xamal ak xam la dafa am sañ-sañu am mboolem xeeti xam-xam yu baax yi nit di soxla su fekkee nit dafa soxla sax ay garaat wala ay darajaat wala ay shahadaat wala ay diplôme moom it dafa am sañ-sañu am loole ni ko góor sañe rek ci loolu nag lañ mën a gise ne kon lii ñuy waaj a waxtaane lu ama am solo la muy xamal jigéen waaye rawatina suñ tegee suñ baaraam bu baax a baax ci jubluwaay yi tax ñu koy xamal ak lan moo ca mën a tukkee ni ay jeexit moo tax ci waxtaan wi rek danañ jéem a tënk ci lu gàtt ndax waxtu wi daa xat wax tuuti rek ci wàccuwaayu jigéen ci lislaam mooy lan waaye wax tuuti ci solo si nga xam ne xam-xam am na ko ci dund ak wàccuwaayu xam-xam dëgg-dëgg sax ci lislaam mooy lan waaye wax dëgg-dëgg lan mooy cëslaayu xamal jigéen ci lislaam cëslaay li lan la waaye lan mooy e, jubluwaay yi tax ñu war a xamal jigéen waaye lan mooy pakk-pakk wala défi yi nga xam ne moo war a taxaw wala moo mën a taxaw sunu kanam di jéem a dox suñ digganteeg ñu man di xamal jigéen ñi ak pakk-pakk yooyu nan lañ koy randale ba mën a def li ñu war ci jigéen waaye lan mooy jeexiit yi nga xam ne moo mën a tukkee ci xamal jigéen wala jàngal jigéen walla njàngum jigéen baat boo ci dégg rekk ma jëfandikoo ko xamal ne ba ca des laa jublu euh, bu dee ci tomb bu njëkk bi ni ngeen ko xame jigéen lu am wàccuwaay la ci lislaam ndax lislaam dafa ñëwoon fekk jigéen mu mel ne rek xawuñ koo jàppe sax doomu aadama mel ne dañ koo bind rek ngir mu nekk fi di liggéeyal góor maanaam nekk rek ci service yi góor euh, lislaam ñëw delloowaat ko gëddaam joxaat koy àqam feddliwaat doon gi mu doon nit feddli ko ci togg ko jëf ni mu ko toggee góor feddli ko ci euh, sant ko ay ndigal tere ko waaye dig ko dël ko ngir lépp rek wane ni nga xam ne noonu la doone doomu aadama ni ki mbokkam mi di góor doone doomu aadama ndax ñoom ñaar ñoo bokk fu ñu jóge aadama ak xawaa ñoo yem ni leen suñ boroom sosee ñoo yem ci mboolem li yàlla jagale doomu aadama ñoo yem ci toggum jëf mi ñoo yem ci buñ jëfee ndigali suñ borom ya la cay tukke ci ak pay wala suñ ko moyee la ca mën a tukkee ci mbugal loolu lépp ñoo ci yem moo tax lislaam ñëw delloowaat leen seen gëdd ci alquran sunu boroom a ngi fay wax naan yaa ayuha nnaasu ttaqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waaxida wa xalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kasiran wa nisaa yaa ayuha nnaasu la wax yéen nit ñi ne inna xalaqnaakum min dakarin wa untha wala mu ne ittaqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waaxida lim leen bindee lenn la waaye da leen bind ngeen di ay góor ak i jigéen waaye ba muy waqanteeg ñoom daf leneen yéen nit ñi kon ñu mën cee déggee ne ñoom ñépp ay nit lañ kon mënuñoo jàppe jigéen leneen lu dul doomu aadama lu dul nit kon gëdd googu lislaam da ko jox jigéen waaye mu feeñ ci ay feeñuwaay yu bari yuy firndeel ne lislaam teg na ko ci barab bi mu ko war a teg bi ci njëkk mooy loolu ma doon junj léegi mooy jigéen doomu aadama la nit la ni góor doone doomu aadama doone nit waaye jigéen yàlla da ko togg jëf euh, sant ko jaamu ko jaamu gi mu mu mu toftal ca ab yool bu ca war a topp su ko defee ci anam gi mu ko bëgge euh, wal muminuuna wal muminaat baaduhumu awliyaau baad wala wal muminuuna wal muminaat baaduhumu awliyaau baad yaamuruuna bilmaarufi wa yanhawna an ilmunkar wa yuqimuuna alsalaata wa yuutuuna alzaka wa yutiicuuna allaha wa rasulah ulaika sa yarxamuhum allahu inna allaha azizun xakim loolu day firndeel ne jigéen ak góor li leen yàlla sant ci jëf lu baax ak jaamu ko ñoo ko yem wa yuqimuuna salaat wa yutuuna zakat wala wa yutuuna zakat wa yutiuuna allaha wa rasula kon ñoom ñaar ñoo yem ci anam googu waaye ku ci def li la suñ boroom santit la cay tukkee ñoo ca yem man amila saalihan min dakarin aw untha wa huwa muumin fa la nuxiyannahu xayaatan tayiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kaanu yaamaluun ba tey payoor gi mi ngi noonu min zakarin aw unthaa la wax kon ñoom ñaar ba tey ñoo yem ci loolu mën nañ cee tudd ay aayaat yu bari yuy firndeel lii waaye dañ koy tënk rek waaye ñoo yem ci ay àq ak ay warteef ak li nga xam ne nii xaj na day lu leen suñ borom sant tam dëppoo ak anam gi suñ borom binde jigéen ndax ku ne na xam ne ne jigéen yàlla da koo bind nag ci anam goo xam ne bokkut ak ni mu binde góor tabiaam am na lu mu laaj ba tax na am na mbir yoo xam ne suñ boroom jagleel na ko ko ngir tabia boobu mu am euh, jigéen sañ naa am ay àqam ci dund gi jigéen bakkanam bi suñ borom da ko fonk ni mu fonkee bakkanu góor ku ne xam na wala dégg nañ histoire liñ daan tudde wa'dul banaat maanaam jur sa doom ba noppi gas ko suul alxuraan ñëw taxaw ne loolu bu mu amati buy nettali wa ida bushira ahaduhum bil unthaa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawaaree min alqawmi min suui ma bushira bihi ay yumsikuhu ala huunin yadussuhu fi turaab loolu ak wa ida almawuudatu suilat bi ay dambin xutilat kon loolu dafa ñëw gis ñu koy doyee dal di sàggane bakkanam mel ne xottu gerte mu ne loolu bu mu amati moo ñii ñoo yem waaye euh, bu dee ci wàllu gàll ci ndoddam ay warteef walla jox ko ay responsabilité ci wàllu dund gi ak i àq ci ci ci wàllu ni muy jëflanteek ay moomeelam ba tey dafa ñëw ne am na ci ay àqam moom it euh, jigéen sañ naa am miiras ni ko góor di amee jigéen lépp lum fàggu lew na ko doom euh, jigéen sañ naa soppaxndiku ci alalam kon yooyu yëpp ay mbir lay doon yoo xam ne day tax ñu firndeel ne lislaam yamale na góor ak jigéen ci responsabilité euh, civile yi nga xam ne moom la leen jox waaye tamit ci ay àq ci ci ci soppaxndiku ak ci fàggu ak ci wut ak ci lépp loo xam ne da ko war a am mu am ko lir rijaali nasibum mimma taraka al waalidaani wal aqrabuun walin nisaai nasib gis nga góor am na waaye jigéen it day daal di am nga gis boo ñëwee ba tey ci taxawaayu lislaam ci ni mu jàppe jigéen ci bu doonee wëyjur wala bu doonee doom wala bu doonee soxna da ngay gis ne ba tey mi ngi fàttali fulla la jiñ ko war a jox jigéen doomam da ko war a yërëm war koo topp war a rafetal jëm ci góor ci moom ni mu ko war a defe ci góor eh, waabudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsaanan waalidaani mooy way juru góor ak wu jigéen kon ni mu waree ci góor gi ngir ñu rafetal ci moom topp ko bu dee ay doomam noonu la ware ci ci jigéen gi waaye bu dee day soxna ba tey lislaam wax ne soxna si dañ koo war a yiir dañ koo war a yërëm dañ koo war a toppatoo dañ koo war di dundal dañ koo war di dëkkal dañ koo war di dëkkoo loolu lépp ay àq la yoo xam ne ni lislaam da koo teg ne jigéen moo ko moom lépp rek bëgg a wane ful jum ko jox bu dee doom bu dee jigéen li la war ci góor ñi moo lay war ci jigéen ñi toppatoo bi dundal bi yar bi jàngal bi lii lépp day ay mbir yoo xam ne dama cee bëgg a firndeel rek ñu xam ne jigéen am na fu ko lislaam fekkoon waaye ba mu ko fa fekkee du fa mu war a nekk da ko fa jëlee indi ko fi mu war a nekk wane ne moo góor mii di ay mbokkam ñoo yem ci lépp xanaa rek ni yàlla binde jigéen ci tabiaam ni mu ko mooñee am na ay mbir yoo xam ne am na ca jagoo xaj na loolu ñun ñëpp xam nañ ko jërul dugg ci tafaasil yi ginnaaw bu ñu xamee loolu ci jigéen ba noppi ak fi ko lislaam teg ñu gis ne liñ ko lënkaleel ci suñ tomb beet muy wàllu xam-xam day lu am solo ci lislaam euh, xam-xam ci ci lu yaatu rek ci lu matale day lu mënta ñàkk moom ci dund gi moo xam muy dundug nit ki moom kese wala muy dundug nit ki ci biir mbooloo mi wala muy dundug mbooloo mi tamit ndax doomu aadama day mel ni xam-xam moo ko mën a tàqaleeg bahima dëgg-dëgg ndax nit bu xamul dara rek daa nekk jëflanteeg moom sax du yomb du am sax njariñ ci fi muy dund laa taalamuuna shay'an googa loolu lay wundu wallahu axrajakum min butuuni ummahatikum laa taalamuuna shay'an loolu mooy daanaka koo xam ne xawuta doon nit rek ku xamut dara yaakaar naa soo jëfee tamit jëf ja ngay jëf du am solo lool moo tax xam-xam lu am solo la ci dundug doomu aadama bi waaye lu am solo la ci dundug société bi waaye boo ñëwee ci lislaam dangay gis ne da koo gën a jox gëdd jox ko fulla ngir wàccuwaay bi mu am rawatina ci lu aju ci diine euh, bu ñu demee ci alxuraan dañuy gis ne xam-xam lu fi yàgg la wàllum njàng akum njàngale wala lu aju ci xam-xam sun borom subhaanahu wa moo njëkk jànkonte moo njëkk jëfe njàngale moomu ci sun maam aadama wa allama aadama lasmaa kullaha loolu yàgg na yaakaar na kon suñ maam aadama tamit suñ boroom lu mu ko waxoon an bi hum bi asmaihim ba mu laajee malaayika yi laajam boobu te ñoom xamuñ ko dafa wax sun maam aadama ne ko am bi hum bi asmaihim loolu jàngale la leeral leen xamal leen waxal leen kon ngir la moo xam ne yàgg na fi lool muy loo xam ne sun boroom da ko laafe da koo sësaleeg aw turam ci ay barab yu wuute ci alxuraan waaye ci ay ci ay siyax ay tëggiin yu wuute loolu lépp day firndeel wàccuwaay wi suñ boroom mi ngi wax ci alxuraan wallaahu yaalamu wa antum laa taalamuun wallaahu yàlla yaalamu wallaahu aalamu bi maa yaktumuun wallaahu alimun bi zaalimiin innaka anta allaamul xuyub nga gis turam wi da koy sësaleeg wàllu xam-xam waaye ci ay tëggiin yu wuute loolu lépp day firndeel rek xam-xam ak ni mu amee solo euh, waaye suñ boroom it dana ko lënkale di ko sësale léeg-léeg ak doomu aadama te loolu kon li muy firndeel mooy doomu aadama kat kon moom am na cër ci xam-xam fa amma alladina amanu fa yaalamuuna annahu alxaqu min rabbihim kon ilmu day ñëw maanaam ñoom nit ñeet am nañ cër ci xam-xam kon war nañoo dox jëm ci war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax foog naa xam-xam baat bi ak ay mustaqaatam lim ñëw ci alquran foog naa mat na juróom-ñaar téeméeri yoon ak lu topp daanaka saar wu ne juróom-ñaar téeméeri yoon ak juróom fukk ak nangam saar wu ne daanaka boo ko doon xool muaddal bi dana mat juróom-ñaari yoon par saar kon loolu firnde la ci solo si xam-xam am ci lislaam Euh, waaye am na yeneen baat yu bari yuy rot ci alxuraan yoo xam ne du baatu xam-xam mu dëgg-dëgg waaye ca lay jeng jëm maanaam lu mel ne ay yaqiin huda aql xikma yooyu ay baat la yoo xam ne yoo xam ne yëpp rek day day day root di sotti ci wàllu xam-xam boo duggee ci sunna muy xadiis yi yonent bi sallallahu alayhi wa moom it da ngay gis daanaka xam-xam da caa baamu baamu baamu baamu ci anam yu wuute mën naa cee tudd benn xadis bu siw rek boo xam ne yaakaar naa soo xoolee xadis bi lu mat juróom-ñaari baat wala juróom-benni baat ci lu aju ci xam-xam da cee rot mooy man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala allahu lahu tariqan ila aljanna wa inna almalaikata la tadau ajnihatiha li taalibil ilmi ridan bi maa yasna wa inna al aalima la yastaxfiru lahu man fi lsamawati wa man fi l ard xata alxiitaan fi lma wa fadlu laalim ala alaabid ka fadli alqamar ala saairi alkawaakib wa inna alulama warasatu alanbiya wa inna alanbiya lam yuwarrisu dinaaran wala dirhaman wa innama warasu alilma fa man axadahu axada bi xadin waafir xoolal xadis bi ni mu baree baati ilmu aalim ulama nga gis yonent bi ni ci yëkkatee xam-xam ku ku yoon wooy sàkk ko xam-xam suñ borom yombalal la yoon wu jëm àjjana malaayika yi suñ rombee koy sàkku xam-xam dañuy wàcce seeni laaf ngir ngir ngir ngir ngir ngir màggal ko boroom xam-xam yi suñ borom da leen di jéggalul wala boog ñi nekk ci ñi nekk ci àddunaak asamaan ak suuf ñépp dañ leen di jéggalul ba jën yi ci biir géej gi sax ca lañ bokk mu ne boroom xam-xam gëne na ku mën a jaamu ni alxamar gëne mboolem yeneen biddiw yépp boroom xam-xam yi ñoo donn yonent yi yonent yi eh, don na donnalewuñ xaalis alal ju bari waaye liñ dolnale maam liñ fi bàyyi mooy xam-xam kon lii rek yaakaar naa doy na sëkk ci firndeel solos xam-xam ci lislaam boroom xam-xam yi wax ci lu dul jeex Eh, foog naa ñun duñu sori ci wàllu googu eh, sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu la ñuy jël ab delluwaay ci wàllu woowu yaakaar naa buntu xam-xam ni mu ko jottali ko ci ay mbindam ci anam yu wuute xamle xam-xam waxeeti xam-xam solos xam-xam nan lañuy ñuy sàkkoo xam-xam jubluwaayu sàkku xam-xam teggini sàkku xam-xam loolu yaakaar naa lim ci def kenn xamut nu mu toll yaakaar naa loolu moom ay thèmes yu baree bari la fal ilmu wal amalu jawharaani la wax li xayray daaray ni yajlubaani xam-xam ak jëfe xam-xam nee na ñaari gànjar lañ yoo xam ne yiwu àdduna ko àllaaxira rek ci lañ lay xëcc jëme wax na tamit ne nit ñi li ñuy rawante du lenn lu dul xam-xam ak diine waalam bi annama tafaawutul wara bil ilmi wa diini yakunu fasbira amut leneen am na fu muy wax ne ñii tegtale ñeent lañ am na ñoo xam dañ lay tegtal àdduna am ñu lay tegtal ci jaamu yàlla am ñu lay tegtal xam-xam am ñu lay tegtal yàlla sun boroom mu ne ku la tegtal àdduna nee na fitnaal na la ku la tegtal jaamu yàlla sonal na la ku la tegtal xam-xam mu ne gindi na la ku la tegtal sun boroom noppal na la gis nga tudd na foofu xam-xam kon ku bëgg a dangay dem ci xam-xam euh, sayidna xasan dafa waxoon ne la baabun waaxidun min al ilmi ataallamuhu ahabu ilaya min addunia wa ma fiha benn buntu xam-xam bu ma jàng moo ma gënal àdduna ak li ci biiram yaakaar naa dégg ngeen woykat ba doon wax naan al ilmu fihi xayaatun lil qulubi kama taxya al bilaadu ida ma massaha walilmu yajlu sada an qalbi saaxibihi kama yujalli sawaada dulmati alqamaru wa laysa zul ilmi bittaqwa ka jaahiliha wala albasiru ka ama maa lahu basaru foog naa loolu sëñ bi sax indi na ko ci ci ci ci ci nax ju saabiq al barbari moo ko wax foog naa jaamiu wala bayaanul ilmi wa fadlihi bi bu bu ibnu abdul bar indi na ko ci muy ay bind yoo xam ne lépp rek day firndeel yëkkati dayob xam-xam euh, kon buñ doon wax dëgg-dëgg xam-xam wàccuwaayam ci lislaam bu ñu yemoon rek ci ne aaya bi njëkk ci njëkk wàcc ci alquran ci jàng la aju muy xam-xam muy iqra bismi rabbika alladi xalaq yonent bi bi muy ñaan sunu borom mu dolli ko ñaanu ko xaalis ñaanu ko daraja wa qul rabbi zidni ilman la ko wax Euh, alquran yittewoo gi mu yittewoo jumtukaay ak jëfandikukaay ak euh, neccukaayu xam-xam yi muy lu mel ne am xel xalaat setantal maanaam afalaa taaqiluun afalaa tatafakkaruun afalaa yatadabbaruun laallakum taaqiluun li xaw xawmin yaaqiluun loolu day firndeel maanaam solo sum jox wàllu xam-xam ndax jumtukaay yooyu nga xam ne tadabbur ak xel ak xam xel toog xam toog jàng xalaat ak yooyu nga xam ne day tax xam-xam am alxuraan da ko da koo bari la lool waaye boo gisee alxuraan moom xam tarjiixam alladina yaalamuuna lay wax walladina laa yaalamuun ñi xam ak ñi xamut duñ yem kon loolu képp ku bëgg euh, sa sa sa sa balance féete féete féete suuf da ngay bokk ci alladina yaalamuun bañ a bokk ci alladina laa yaalamuun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax gi mu wax rek ne talabul ilmi farida loolu rek wax dëgg yàlla doy na ci firnde ak wax gi mu wax ne innama buistu mualliman man suñu borom daf maa yónni mualliman may ab xamlekat ab jàngalekat gis ngeen ci xaswatu badrin al kubra bi jullit ñi gañee ba jàpp ay ay ay ay ay yéefar foog naa ñun ñëpp xam nañ ko yonent bi dane woon ku ci bëgg a jot sa bopp jàngalal fukki doomi jullit ñi bañ mën a liir mën a bind kon loolu solos xam-xam lay firndeel laaju leen xaalis laaju leen ay giléem laaju leen ay ay ay ay ay ay li ñu am ci alali àdduna waaye xam-xam la jël ci ñoom kon loolu ba tey firnde firndeel li ma doon junj léegi la euh, bu ñu xamee nag solo si ci xam-xam xam wàccuwaay bi ci soxna yi muy jigéen ñi kon war nañoo xam ne lislaam mënta sàggane xamal jigéen wala jàngal jigéen wala njàngum jigéen loolu xel sax du ko mën a nangu euh, jëmmi jàngale maanaam jàngale ci boppam dafa am cëslaay maanaam jëmmi jàngale taalim dafa am cëslaay ci lislaam euh, huwa alladi baata fi lummiyiina rasulan minhum yatlu alayhim ayaatihi wa yuzakkiihim wa yuallimuhum alkitaaba walxikma kon yonent yi seen liggéey bokk na ca jàngale ak xamle sunu sang ba sallallahu alayhi wa sallam ne woon inna allaha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annita walakin ba'athani mu'alliman muyassira daf maa yónni yónniwu ma may kuy mettil wala may kuy jafeel waaye daf maa yónni may ab jàngalekat buy jàppandal maam boo xam ne du mettil du jafeel Euh, sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu maa ngi ci cëslaayul jàngale sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu am na leetar bu mu bindoon boo xam ne fa mu tàmbulee mooy risaalatun min ash-shaykh al-xadim ila jamiil muridin noonu lañ ko euh, defee bopp jukki bi sëriñ bi ne innahu min abdillahi taala wa xadimi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam bi alihi wa sahbihi wa sallam wa baarak ila ixwaanihi wa axawaatihi fi diin aw fi tiin umuman wa am lum wax wax wax damay bañ mu gudd waaye fa mujje mooy wa aamurukum bittaallumi wa bittaalim li wajhi llaahi taala alkarimi alalim maanaam dama laa bëgg a wax cëslaayul jàngale ci ci ci ci lislaam ak boroom xam-xam yi am na beneen lettre bu mu bindoon maam Thierno euh, bokk na ca lam ko wax mooy wal yajtahidi al ulamaau fi l amali bi ma alimu wa fi taalimi man jahilu wal yajtahidi al jahiluuna fi suaali wa fi taallumi wal qiraati ala al ulamaai gis nga taalim nañ jàng boroom xam-xam yi nañ góorgóorlu ci jëfe liñ xam tey jàngal ñi xamut ñi réer nañuy laaj tey jàng ci boroom xam-xam yi kon yaakaar naa kenn du laajte cëslaayul jàngale ci lislaam waaye nag cëslaayul jàngal jigéen tamit daa am kon loolu nga xam ne buñ bu ñu waxee cëslaayul jàngale rek ñépp dañ ciy dugg kon suñ wëlbatikoo di di beralaat jigéen ab loxo dama bëgg a ne moom buñ ko ci bëggee génne da cee bokk te kenn mënu ko cee génne bi suñ borom naan qu euh, anfusakum wa ahlikum naaran kenn mënu cee génne jigéen njaboot jigéen ca la njaboot nag ngir nga fegal leen sawara faw nga jàngal leen bañ xàmmee xam lu baax xam lu bon mën a jëfe lu baax li moytu lu bon li ngir ñu moytu safara euh, aaya bi am na ñuy wax ne cosaan li dëgg-dëgg mi ngi aju ci jàngal jigéen jàngal jàngal ak njaboot ak yar leen te njaboot kenn mënu caa génne jigéen wazkurna maa yutla fi buyutikunna min ayaatillahi wal xikma loolu jigéeni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko alquran wax wazkurna loolu wàllum njàng la ak xam-xam ak lu ci aju yonent bi sallallahu wax na ci benn xadis boo xam ne mi ngi ci saxiixul buxaari yi fi bi daan am na ñett ñoo xam ne yàlla dana leen jox ñaari yool kenn ka dane wa rajulun kaanat indahu ama fa addabaha fa axsana ta'dibaha wa allamaha fa axsana taalimaha thumma aataqaha fa tazawajaha fa lahu ajraani ki nga xam ne am nga jaam masalan yar ko yar bu rafet jàngal ko njàng mu rafet goreel ko denc ko kon njàng ma ñëw na ak yaraba kooka jigéen lay waxal yonente bi sallallahu alayhi dafa jage jagleeloon saxaabiyaat yi euh, waxtu wala fan boo xam ne nii daleen koo jagleel ngir bu jotee mu dem ci ñoom di leen jàngal euh, abu saïd al xudri aw al am na benn xadis bu mu nettali wax ne Euh, soxna yi dañoo demoon ci yonent bi mel ni ku xaw di jàmbat daal nim niroo ne yonent bi góor ñi dañ cee ëpp cër jigéen ñi ci wàllu njàngale yonent bi dégg leen ne leen danaay ñëw ci yéen benn bis bu ma ñëwee di leen jàngal di leen waar kon loolu ba tey cëslaay la ci njàngum jigéen ak jàngale jigéen Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu am na lu mu bind lu siiw loo xam ne fi mu tàmbulee mooy innahu minni ila jamii al muridina wal muridaat mooy fi muy wax naan amma baada fa inni amartu kulla man taallaqa biya li wajhi llahi taala alkarim bi taallumi al aqaaidi wa altawxidi wa axkaami altahaarati wa alsalaati wa alsiyaami wa gayriha min kulli maa yajibu ala mukallaf wa inni takallaftu lakum wa lakunna bi tawaalifa yakunu fiha jamiu dalik nga gis bi muy tàmbali dana innahu minni ila jamiil muridina wal muridaat kon discours bi da koo jëmale ci góor ñi jëmale ko ci jigéen ñi bi muy wax naan war bi mu leen joxee ndigal ngeen jàng jàng li jàng li jàng li danaa leen taalifal ay téere yu ngeen di sukkandiku daf ne walla wala na nga gis ni mu amee solo lool kon day fir nit ñu baax ñi gaa yi yàlla yi jàngalekat yépp dañoo maase ci am amal amal njàngaleem jigéen ful la ci anam giñ ko joxe njàngaleem góor euh, bi muy waaj tukkeem bi di dénkaane dénkaane bu gudd bu mu bindoon bokk na ca mu ne wa allimu abnaakum wa azwaajakum wa kulla man taallaqa bi adyaalikum maa awjabahu llaahu aleykum wa illa fa sa tusaluuna yowma alxiyaama na ngeen jàngal seeni doom jàngal seeni soxna ak képp ku aju ci yéen li yàlla waral ci ñoom su ngeen ko defut dangeen ko layoog yàlla wala sun boroom dana leen ko laaj azwaaj ay ay ay ay ay soxna ay jigéen lañ kon loolu firnde la ci nga gis loolu boo demee ci lislaam nga gis boroom xam-xam yu jigéen yi bari fa sayidatuna aïcha sayidatuna ummu salama sayidatuna xafsa ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne dañuy firndeel ne jigéen ak xam-xam dañoo taqaloo te mënuñoo taqali rawatina ci lislaam ci li ñu gën a jege rek dangay gis ne ku mel ne sunu maam sayidatuna soxna asta waalo way juru soxna jaara mën nañ koo joxe misaal ci njàngum jigéen ak xam-xam ak jigéen ku yéeme la woon ci wàllu xam-xam niñ ko waxee xam-xamu diine ak xam-xamu luxa da daan def ay xalaqaat di waare di jàngale ay góor ak jigéen waaye dafa euh, magaloon lool te téewut woon mu daan taxawe taxawaay yu am solo ci wàllu xam-xam ak jàngale wax nañ ne am na lu ma téeméeri at ak fanweer ak juróom-ñett waaye téeméeri at ak juróom-ñett yépp bis bu set da koy taxaw di ko naafilaa alxuraan kaamil bi juróom-ñetti rakka kon kooku ku ne xam na ne taxawaayam ci jaamu yàlla ak xam-xam amoon na solo euh, doomam jooju di soxna jaaratullah moom it ci tànkam yooyu la jaar wax nañ ne moom mii moo ko jàngal alxuraan am ñu wax euh, euh, keneen maanaam am na ñu wax woy juram wu jigéen am ñu wax woy juram wu góor waaye lu mu ci mën a xew lu ci mën a xew daal jàng na alxuraan ba man ko jàng tafsirul quran ci nijaayam tafsir mbàkke ndumbe jàng ca fiq ak xadiis ak siira góor-góorlu nag ci xam-xam euh, ba àgg ci man lu baree bari ci ay fànn ba mujj doonoon ab jàngalekat wax nañ ne bi muy am fukki at ak juróom-ñett àggoon na ci di jàngale téere yi gën a kawe ci ñuy jàngale ci wàllu xam-xam lu mel ne muxtasarul xaliil ak maqaamaatul xariiri ak ibnul muhayyab ci siira foog naa téere yooyu yuñ xam lañ kon ku àgg foofu ci fukki at ak juróom-ñett ku ñu waajal la ku ñu jàngal la moo tax mu wëlbatiku di jàngalewaat euh, boo xoolee sëriñ bi yittewoo gi mu yittewoo woon njàng jàngal jigéen moo xam muy ay doomi boppam moo xam muy ay waa kër boppam moo xam muy sax soxna yi aju ci murit gi bi sifatin am mën naa cee joxe ay misaal yu gàtt bu njëkk bi am na benn tontu bu mu defoon ci Cheikh Omar Diop bi mu koy laaj ci warteefu góor ci soxnaam euh, tontu la da nga cay dégg ne euh, ji góor dafa war a jàngal soxnaam li ñuy tudde fiqhu nisaa maanaam jigéen gi xam li ko war ci wàllu diineem rawatina li li mu jagoo moom nga xam ne tabiaam moo ko laaj euh, waaye dañ koy dégg ne jigéen dafa war a jànge ci borom këram boroom këram su xamut lu mu ko jàngal dafa war a dem laajali ko la mu war a xam indi jox ko ko mu àgg ci ne borom kër bi su xamut demut laajale ko ko jigéen gi sañ naa génn dem moom laajale boppam kon lii day firndeel maanaam jàngal soxna yi ni mu amee solo euh, beneen bi sëriñ bi ci misaal yi daf daan jàngal waa kër boppam yi rawatina bi mu daataan dem ci tukki bi soxna Aminatu bi mu génnee àdduna euh, sëñ Muhammad Mareema Jóob bi mu ñëwee nijaayam yónni ko muy jaale si nettali na wax ne sëriñ bi da koo wax ne ko soxna amintaloo benn bind moo ko dese woon ci risaala te sëriñ bi moo ko doon jàngal kon loolu day firndeel ne jàngal soxna yi jàngal jigéen lu am solo la euh, waaye soxna Faatuma du maam xam ngeen leetar bu siiw boobu sëriñ bi bindoon bi mu nekkee ci géej gi bind ko ay mbokki soxna Faatuma du maam foog naa bokk na ci lim leen doon dénk mooy wajtahid yaa axi ahmad fii taalimiha li anni kuntu uridu zalika na góor góorgóorlu ci xamal ko ndax man bëggoon naa loolu kon ba tey ngay gis jàngal soxna yi wàccuwaay bi mu am euh, bi mu jógee ci tukki dafa wéy ci loolu li ko jotam mayoon mu koy def lim ko mayut mu wut ñu leen koy defal yaakaar naa ku mel ne sëñ daam Abdourahman rek suñ ko ci joxee misaal dana doy ñu bëree bari ci njabootuk sëriñ bi moo xam muy ay takk ndeeram wala ak njabootuk boppam foofa lañ jànge lu bari ci lañ jàng wattoo fa alxuraan rawatina foog naa li sëñ bi wax léegi duma ci delsi loolu tamit ci misaal yi la bokk yuy firndeel ne sëriñ bi njàngum góor ak mu jigéen la yemale ku naan ko bu doonoon góor de mu mat a dal mu ne la ba muy jigéen nag mi ngi lay bëgg a xamal ne kon bu dee jigéen it dafa war a dal kon loolu ay bind la yoo xam ne mën nañ koo tudd ci euh, solo si nga xam ne xam-xam am na ko waaye solo si ko lislaam jox ci ay teksam moo xam muy alxuraan moo xam muy sunna wala moo xam muy boroom xam-xam yi rawatina nag sunu sëriñ muy Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xam ne moo ñu gën a jege te ñu mën koo joxe comme misaal ci bunt bi kon euh, lii lépp ci ay solo lii lépp ci importance lii lépp ci dayoo yaakaar naa wërta mën ñàkk ab jubluwaay nit buy fullaal dara wala di ko fonk wala di ca def coona war naa am jubluwaay bu tax mu koy def kon lan mooy jubluwaay yi nga xam ne moo war a tax ñuy sonn ci jàngal jigéen wala lan mooy jubluwaaye jàngal soxna yi dafa am boroom xam-xam bu tudd Abdul Hamid ibn Badis ab ab algérien la daf ne woon ida allamta waladan faqad allamta fardan wa ida allamta bintan faqad allamta ummatan soo jàngalee góor jàngal nga kenn waaye soo jàngalee jigéen jàngal nga aw xeet waxin la foog naa jigéen ak solaam ak taxawaayam ci tamaa bi loolu yaakaar naa firnde la ci kon bokk na ci jubluwaay yi bi ci njëkk mooy waajal soxna soo xam ne nii day mën a jaamu suñ borom ci anam gu rafet ni ko suñ borom digle ci naka mooy jàngal ko lim mënta ñàkk ci diineem ak ay faratay jëmmam ak lépp lu koy jariñ ci xeeti xam-xami àddina yi wala xam-xamu diineem tàggat ko tamit ci di ko pratiquer maanaam di ko jëfe waaye tàggat ko ci di ko jëfe ci lu wéy ndax loolu mooy mën a tax mu toxal ko mu jóge ci moom jàll ci ñeneen muy wéy rek ba àddunay tukki ndax suñ boroom lim ñu indee ci àdduna mooy wamaa xalaqtul jinna wal insa illa li yacbudun al ins nag kenn mënu cee génne jigéen kon jubluwaay yi bokk na ci mooy waajal ko ngir mu mën a def euh, liggéey wala mission boobu nga xam ne moo tax suñu borom indi ko ci ci ci ci àdduna sëriñ tubaa radiallahu am na leetar bu mu bindoon kenn ci mbokki taalibe yi da ko waxoon ne ko fal yow mastaxil bi idaamati l awraadi wan nawaafili jidda wa mur jamii talaamidati bil ijtihaadi fi ma baynahum wa bayna rabbihim wal yatruku gayra zalik wa mur akaabira talaamidati bil mukthi inda duyuurihim bila dawraan fa man kaana lahu xaaja fal yasir ilayha wa man lam takun lahu xaaja fal yamkut fi maxallihi mu teg ca ne wa mur annisaa bil ijtihaadi fi salaati wa fi gay wa fi gayriha min jamii ma stataana min alxayr kon yaa ngi gis moom mi ngi am taxawaayu jubluwaayu fexe ba soxna yi li leen fi suñ boroom indee ñu man ko muy jaamu yàlla te loolu wàllu jàngale xam-xam day ñëw ngir euh, bay ci waar wu yaatoo yaatu euh, am na feneen fu mu doon wax naan képp koo xam ne ñëw na ci yéen góor ñi walla yéen jigéen ñi di leen wax yéen góor ñi wala yéen jigéen ñi naan leen man damay sàkku ci yéen alal wala dama leen di digal lenn lu du topp yàllaa ko yonenteem ne leen ko li nga wax du noonu kon lii lépp day firndeel wàllum topp yàlla jaamu yàlla bi dayoo bi mu am te jàngale ñëw ngir bokk ci ay jubluwaayam jàngal jigéen mooy tàggat ko waajal ko ba mu mën a taxawe taxawaay boobu foog naa wàllu googu mën nañ cee joxe misaal mu ñu jege muy sayyidatuna maryama jaaratullah al alawi boroom an nafahatul miskiya da koy mel naan kaanat min an nisaai bi aabidaat mashhuratun bil barakati wa salaax wa sadaqa wa fi'lil xayraat wal muwaadabati ala taa'ati llahi tabaaraka wa ta'ala wa ittiqaa'i shubuhaat laa talbasu gayra gazliha nga gis soxna jaara ci jigéen ñi mënoon a jaamu yàlla la bokk siiwoon lool ci barkeeg baax ak mën a sada saraxe mën a def lu baax mën a sax ci jaamu yàlla ak ragal lool am lënt nag waaw lim daan sol sax moo ko daan ràbbal boppam wala moo ko daan ëccal boppam kon loolu day firndeel ne maanaam wàllum jaamu yàlla lu ñuy waajal la su ngeen delloo ci gannaaw bi may wax léegi bi may wax solas jàngal jigéen soxna si laa joxe woon référence kon suñ ko tuddaatee ci referance yi mën a jaamu yàlla formation ba wala waajtaay wa ma doon tudd léegi am na lu ci def loolu laa bëgg ñu di ko lënkalewaale ci sunu xel sëriñ bi am na lu mu doon wax ci soxna soosu mu ne innaha kaanat atqa mraatin wa aaf wa aqnat li rabbiha ala wajhi l ard lida aw kama soxna si de ci ñi gënoon a ragal yàlla la bokk ñi gënoon a fegu ñi dàqoon a wéetal suñ borom looloo tax suñu borom jël ma def ma may ab takk ndeeram woykat ba naan ko yaa sàmm yaa jaamu yàlla ak Moustapha ci lu wér ba yàlla seereel ko réew mi jaaratullaahi mus la julli te jàppul mus la julli te wérdul door a xëy sanga sangam tuubal dal di wër këram buubal loolu ay firnde la ci nit ku baax nit ku mën a jaamu yàlla nit ku nangoo sonn ci jaamu yàlla beneen jubluwaay bi mooy waajal soxna soo xam ne day mën toppatoo boroom këram day mën a dund ak borom këram ci anam gi ko ko lislaam digal ci waajal ko mu mën a xam mën man mboolem asasiyaat yi nga xam ne mooy tax ba mu mën a yenu responsabilité yi mën a taxaw ci warteef yi nga xam ne moo ko war ci dundam digganteem ak boroom këram mën a taxaw ci dund way dencante ci anam gi nga xam ne moom la ko lislaam bëgg ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon jigéen ji gën ci jigéen ñi mooy ki nga xam ne soo ko xoolee nga bég soo ko digalee mu topp la te du wuuteeg yow ci dara kon loolu waajtaay la laaj ak jàngale mooy tax jigéen gi man ko ida sallatil xam xamsaha foog naa xadis boobu xam ngeen ko wa ataat zawjaha ma nga kon loolu lu ñuy waajal ci nit ki la kon bokk na ci jubluwaayu jàngal soxna yi waajal leen ngir ñu mën a euh, ñu mën a nekk nekkin wu baax wu rafet ci seen biir néegu sëy soxna si radiyallahu anha mën naa koo joxe misaal li ma ci jublu rek mooy bëgg lu ñu gën a jege moo gën ñuy euh, wuri wuti wuti fu sori misaalam ci fonk boroom këram nangoo sonn ci moom nangu koo liggéeyal yaakaar naa xes sa boobu ñu doon wax ca jën wam téewoon ba fajar fekk ko ci misaal la ca xes sa bi ñuy wax ci xar gim xaroon gaalam di ca wutal sëñ bi lu mu jëfandikoo misaal la ca dugg gam duggoon ca sayaan ba wala teen ba ngir wutal ko ndoxum jàpp firnde la ca mutiatun rabbaha wa cheykha sayidaha ardathu afaaluha lillahi idmaana loolu sëñ ma Mareem moo ko wax soxna si da daan topp boroomam ak sangam ba muy sëriñam ba jëfam ya da ko gërëmloo sëriñ bi da doon wax soxna pend buya naan ko wala taruumi taatallaahi bi la taati zawjiki taqiyi dil ula ne ko wal taalami anna jihaada niswa fi taatil azwaaji duuna mirya kon lii day firndeel rekk ne am waajtaay wuy tax nga mën a nekk ak sa boroom kër ci anam gu mucc ci ayib ci jubluwaay njàngum soxna yi la bokk waaye waajal koo xam ne nii day mën a yar ak njabootam waaw ndax loolu ci la bokk loolu waajtaay la laaj mooy nit ki nga jox ko mboolem jumtukaay ak euh, xam-xam yi tax mu mën a yar njabootam yar bu mucc ci ayib euh, ndax mu mën a génnee ci loxaam benn génération boo xam ne bu xam lay doon bu xam li ko war xam ban taxawaay lay taxaw ci diine ji ban taxawaay lay taxaw ci pénc mi ak ci mbooloo mi qu anfusakum mën naa dugg foofu euh, sayduna ismail suñ borom mi ngi ñuy wax ci alquran ne wakaana kaana yaamuru ahlahu bisalaati wa zakat kon yarug njaboot xamal leen ci mbir yi la bokk soxna soos yi ma tuddoon léegi muy soxna jaara sëñ basiiru am na lum ciy nettali ci wàll wii may wax muy mën a yarug njaboot nga xam ne ci jubluwaayu njàng mi la bokk sëñ basiiru day wax ne ci minan wa kaanat bi awlaadaha ala al muruati wa diini wa tahaarati wa kathiran ma kaanat aw wa kathiran ma taxki alayhim xikaayaati saalihin soxna si daf daan yar ak njabootam ci mbañum rus ak diine ak laab da leen daan nettali lu baree bari e, e, e, nettali gaa yu baax ya ngir bëgg rek ñu ciy ñu ciy roy foog naa sax dëgg ngeen ni mu ko waxee ne sëriñ bi ba ko soxna see waxee ne min da bi as-saalihiin xiyaamul layli ca sëñ bi tàmbali moom bu guddi jotatee mu jóg di di jàpp kon lii beneen jubluwaay la boo xam ne ci jubluwaay yi jàngal jigéen la walla njàngum jigéen waaye bokk na ci tamit mooy waajal koo xam ne nii dana mën a yor këram yor kër nag dafa gën a yaatu li ma doon wax léegi muy nekk ak sa boroom kër nekkin wu rafet loolu ci kër gi la waaye kër gi daa gën a yaatu boroom kër nag maanaam jigéen dañ koo war a waajal xamal ko jàngal ko ba mu mën a saytu këram mu xam warteefi këram xam nan lay yittewoo njabootam xam nan lay toppatoo wér-gu-yaramu ay doomam nan lay setale këram ak mboolem li nga xam ne dafa aju ci kër gi rek loolu lu ñuy waajal la ta ciw loosam la gàll ndax kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi booba yonent bi ma ngi koy wax ci mujj ga ne ca wetu mujj ga wal maratu raayatun ala bayti zawjiha wa masulatun an raiyatiha kon lii jubluwaay la ci li nga xam ne ni warees na koo mën a tudd ci wàll woowu am na lettre boo xam ne sëriñ bi bindoon na ko Cheikh Ibrahima Faati ci bunt bii rek ci buntu mën a saytu kër ak man koo toppatoo euh, ba mu ko bindee wax ko ci ay wax daa àgg ci ne ko wamurin nisaa bil ijtihaadi fi lqiraati wa fi salaati wafil fil juluusi fii buyutihinna na nanga digal soxna yi ñuy góorgóorlu ci jàng ak julli ak di toog ci seeni kër foog naa toog sa kër nag tëdd di nelaw wala toog di xoole taxut muy wax toog ca kër ga di ko lijjanti lijjanti kërit balaa mën a sotti nit ki day xam nu mu koy lijjantee ngir mu xam nuñ koy lijjantee nag la ca gën a yell mooy dañ ko koy xamal loolu moo indi solos njàngum jigéen wala xamal jigéen euh, beneen bi ci mujj ci jubluwaay yi mooy euh, waajal nit walla soxna soo xam ne nag dana mën a taxaw ci dundal mbooloo mi muy dund mooy pénc mi ak euh, ñim nekkal ci biir àdduna bi ngir mu nekk rek di jëmm joo xam ne ni dana amal njariñ fi muy dund dana doon benn bànqaas boo xam ne ku ko génnee ci garab gi muy sax garab ga yëg ko kon bu boobaa ci lañuy xam ne warteefam mën naa doon ci kër gi naxam foofa la gën a yelle waaye am na yeneen warteef yoo xam ne war na ko ci penc mi loolu tëgtalewut na nag day génn nekk ci penc mi sàggane kër ga penc mi ngir jigéen génn ci daa war a am lu tax mu génn ci dafa amit num ca war a génne jigéen ngir mu ñëw di def warteefam yi ko war ci pénc mi dafa am lu ko war a dafa am ay ay lu ko war a tënk ay dawaabit yoo xam ne moo war a tënk loolu kon yooyu tamit lu mat a lu mat a bàyyi xel la moo tax kon fexe ba waajal ko ni mu war a mën a saytoo këram mu war a mën a taxaw taxawaay bu tol noonu bu ko pénc mi soxlaa te ko ko looloot lu mën a am solo la mën naa cee joxe misaal rek mu gàtt moo xam ne danañ xam ne loolu sax day dëppoog diine suñ ne woon tey euh, jàngukaay yi dañuy taqale góor ñi jigéen ñi jigéen ñi góor ñi dañ leen di jàngal non jigéen ñi jigéen ñi dañ leen di jàngal góor ñi góor ñi di leen jàngal foog naa taqale ñaari jins yi loolu lu diine nangu la bu boobaa jigéen génn këram dem ca jàngukaay ba ngir mën a jàngal benn jins biñ tàqale foog naa loolu diine du ko bañ fooguma loolu jigéen gi nga xam ne day liggéey doon ab mumarrida masalan ab sage-femme ku ñiy saytu soxna yi foog naa bu fekkee dañoo am fajukaay boo xam ne dañ fay saytoo soxna yi rek wut soxna yu fay dem di saytu soxna ya loolu foog naa diine du ko du ko bañ kon waajtaay yu mel noonu dañ koo war a dugal ci xamal jigéen ñi ba saa yu leen pénc mi soxlaa ci loo xam ne sañ nañ ko seen ni leen suñu borom mooñee mën nañ ko te mën nañoo sàmmoonteeg teggin yi tax ñu sañ ko ñu mën a dem taxawe loolu euh, am njariñ ci seen seenub société foog naa soxna sii ma doon junj soxna jaara dafa doy misaal rek nag moo tax génnuma ko dama mënta dama damaa mënta waxe wax lenn loo xam ne duma fekk ci moom misaal mu koy mu koy dëggal euh, sëñ sëñ Masamba ma doon na wax solo njariñam li mu amoon ci dundam ak penc meeg ñim séqal mu doon wax naan in zaaraha jaaiun aw zaaraha damiun saara bi ma indaha shabaana rayyaana yaa taaliban naailan fasal bijaaratina wamrur biha talqa ixsaanan fa ixsaana kam mustaciinin ataaha wahiya tunjiduhu fartadda yunjidu insaanan fa insaana maanaam soxna si day ku ko masaan ziyaare mar wala nga xiif sooy dem dangay màndi dangay rekk regg ku masaan ñëw ci moom di sàkku dara ah, soo su fekkee da bëgga bëgg a sàkku dara demal sàkku ko ci soxna si soo rombee ci moom danga nga fa fekk ak rafetal wala la ngay wut nga am ko bari ku ñëw ci moom di dimbali ko ci moom waaye bu demee la mu doon wut lépp lay am fii day firndeel maanaam moom njariñ lim amaloon penc waaye am na lu am solo lu lu ci lu ci mat a bàyyi xel mooy waaye toog gi mu toogoon këram tamit parce que inzaaraha jaa'iun la wax maanaam ku xiif bu ko ziyaare see kon moom ma nga toog ki xiif moo ñëw yaa taaliban naailan fasal bi jaaratina wamrur biha romb fa rek mooy kon yow yaay dem kam mustainin ataaha bariwaana kuy sàkku ndimbal dikke ko kon yow yaa ñëw kon moom mi ngi doon amal société bi eh, njariñ waaye mi ngi nekkoon ci fi mu war a nekk di lijjanti li mu waroon a lijjanti loolu ay bind la yoo xam ne war nañ koo mën a jël fii xam ne jubluwaay bi kon bokk na ci mooy waajal nit koo xam ne ni dana mën a def euh, li nga xam ne moom la ñuy xaar ci moom kon yooyu yëpp suñ ko tënkee dañuy xam ne jubluwaay yi génnul euh, ñeenti jubluwaay yi mooy jubluwaay yu aju ci wàllu ak nite maanaam nit ki jigéen gi ñu xamal ko jàngal ko ba mu yëg ak niteem maanaam moom mu yëg ne nit la doomu aadama la waaye jubluwaay yoo xam ne ci wàllu pénc mi la aju muy ci wàllu dund mbooloo mi mooy ñu jàngal ko xamal ko ba mu amal solo pénc mi amal ko mbooloo mi ni ko amale boppam waaye jubluwaay boo xam ne ci wàllu yokkute la aju ak wàllu koom mooy ñu jàngal ko waajal ko ba mu mën a joxe bay waaram ci lu aju ci yokkute koom ci jëmmam waaye ci fi muy dund muy muy mbooloo mi euh, beneen bi ci topp mooy boo xam ne dana aju ci wàllu sharia nag muy wàllu euh, lislaam mooy wàllu diine maanaam tey nga waajal ko ba nga xam ne dana dana xam li ko war ci diine li ko war ci lislaam li ko war ci diggam ak boroomam ba mu mën koo taxawee ci anam goo xam ne gu mucc ayib lay doon kon xeeti jubluwaay yooyu moo xam muy ay maqaasid yoo xam ne insaaniya wala yoo xam ne ci wàllu dundu penc mi askan wi wala ci wàllu yokkute walla ci wàllu diine diggante nit ki ak sun borom yi ma fi doon tudd yépp soo ko xoolee benn génn ci yooyu ak yeneen yoo xam ne nag xaj na euh, wax ji euh, du ca mën a àgg ngir xataayu waxtu bi sëriñ bi am na fum tënk jubluwaay yi ma doon wax yépp mooy fi mu doon wax naan fal taqsudu arbaatan inda ibtidaa taallumin li kay tafuuzu bil huda awaluha al xuruju min dalaali maanaam génnug réer moom ci la lépp aju nit bu génnutug réer du xam boppam jubluwaay ci wàllu nite day dugg ku génnutug réer dañu tug réer doom jaamu suñ borom jubluwaay ci wàllu diine dugg ku dañu tug réer doo mën a jariñ penc mi ku dañu tug réer maanaam wàllum koom yaakaar naa sax fàggu ko mën naa sooxe kon awwaluhal xuruju min dalaali googu foog naa mën naa làmb lu baree bare wasaani nafu xalq zil jalaali foofoot yaakaar naa gis ngeen jariñ bindee fi yàlla yi da gis wàllu li ma doon junj léegi ci jariñ penc mi ak am fa njariñ ñëw saalisuha al ixyaau lil ulumi ba tey loolu day dugg xam-xam moo xam muy xam-xamu diine muy beneen xam-xam bu mu mën a doon dañ koo war a dundal di ko yokk mooy waral ñeneen ñuy ñëw fekk ko fa man caa dolli xam-xam ba di wéy ba àdduna tukki al amalu bil maalumi nag daanaka moom moo ëmb lépp ndax ku xam ak li nga xam lu mu baax baax soo ko jëfewut xam nga du am njariñ euh, lii ma wax fii nag ci xamal soxna yi ak solo sim am ak jubluwaay yi am na lu taxaw temm bëgg a dox suñ digg ak moom loolu dama ciy tudd ay mbir yu ndaw rek danaa ci tudd ñeenti mbir wala juróom bi ci njëkk mooy jaxasoo njàngum soxna yi wala jàngal soxna yi bokk na ci pakk-pakk yi nga xam ne mën na ko gàllankoor mooy jaxasoo jaxasoo bu bari surtout ci wàllu njàng ak sàkku xam-xam foog naa ñépp danañ xam li may bëgg a wax mën naa gàllankoor euh, njàng mi ba liñ bëgg dëgg-dëgg duñ ko am nan lañ koy saafaraa loolu wala lan la ñuy jàkkaarloog loolu wala euh, pakk-pakk boobu nan lañ koy jàggee ruur mooy suñ mënoon a fexe ba nu ñu mën a def bay tàqatle góor ñi ak jigéen ñi ci barabu sàkkuwaayu xam-xam yi ñu di ko def foog naa loolu rek moo ñu mën a musal ci lu mel noonu luñ ko man ndax léeg-léeg zuruuf yi dana am lum gànt waaye lu ñu ci man ñu di ko def te loolu mooy njàngalem lislaam li ñuy tuddee mondialisation loolu lu mën a dox suñ digganteeg njàngum njàngalem soxna yi la ndax fi fi ñuy jëm fi ñuy orienté fi ñuy jëm jëmale njàng mi du bokk ak fi ko lislaam jëmale li ñuy bëgg a xamal jigéen ak liñ ko bëgg jàngal ak ci liñ ko bëgg yee léeg-léeg day wuute ak jubluwaayu lislaam loolu nag niñ koy saafaraa mooy ñu fexe ba ay valeur yu aju ci lislaam ñu di ko suuxat ci jigéen ñi ak di leen yee ci ñuy mën a tànn tànn gu baax bu ñuy jàng ak bu ñuy sàkku xam-xam pakk-pakk yi bokk na ci lu aju ci ñun muy aada yi ak cosaan yi ak gisiin yi ñuy am ci jigéen xaj na loolu sax mi ngi tàmbulee wàññeeku léegi bu njëkk dañ daan wax naan jigéen de bu xamee lum julleek julleeg lu mu nàngame rek ci ci njàng mi daanaka mën naa dem nag jàngi liggéeyub jigéen foog naa loolu ay gisiin la yoo xam ne ni day dox suñ diggante ak ñu mën a saytu soxna yi jàngal leen liñ war a xam loolu nan lañ koy saafaraa mooy ñu delloosiwaat xel yi xalaataat jigéen ñi ak soxna yi lan lañ leen di doyee ci société bi lan moo leen di xaar ndax togg ak yekk dong moo leen di xaar déedéet am na lu leen di xaar ci penc am na lu leen di xaar ci seen bopp am na lu leen di xaar ci euh, seen njaboot am na lu leen di xaar ci seen kër seen boroom kër am na lu leen di xaar ci ci ci diine ji wooteeb suñ boroom bi kenn mënu ci woon jigéen ñi loolu foog naa ñépp xam nañ ko lu aju ci wàllu koom am koom maanaam koom mu dellu gannaaw walla ñàkk a doyal am koom ba tey pakk-pakk la ndax ku ne xam na ne njàngum jigéen dafa cher ci waxin jàngal góor moo gën a yomb jàngal jigéen ah ci sama xalaat la bopp mën naa am ma juum waaw euh, soxna yi soo leen di jàngal li nga ci ci ab coona li nga ciy daj ci financement bokkut ak góor ñi li ngay daj ci ñoom kon maanaam wàllum koom mu néew pakk-pakk la loolu nag niñ ko mën a saafara mooy ñu fexe ba defar waajal mboolem luy tax ba euh, soxna yi seenum njàng di am ci anam goo xam ne kuu bi wala lim ñuy togg ci ay coonaay koppar du bari suñ ko mënee wàññi ñu di ko gën a wàññi ndax ci misaal rek mën naa cee joxe menn misaal soo demoon ci internat yi jàngal jigéen kese ak internat yi jàngal góor dong yay jàngal jigéen ñoo ëpp lu ñuy fayeeku ci li ma ci xamagul xaw ma nag ñeneen ñi luñ xam soo demoon ci école yi nga xam ne soxna yi rekk la ñuy jàngal ak école yi jàngal góor ñi kese fa ñuy jàngale soxna yi képp mooy ëpp lu ñuy fay kon loolu pakk-pakk la léegi kii suñ ko suñu suñu suñ nee moom dafa am lu ko war ci pénc mi ni mu waree kële ñu war ko waajal ni ñu war a waajale kii moom niñ koy waajale jafe kenn amul njëg gi waa kon ndax waajtaay wi dana am ndax nit ñi li leen ci war danañ ko def kon foog naa wàññi nag njëgug waajtaay wi dana tax ba waajtaay wi di mel ni mu war a mel waaye li ñuy tudde programme yi walla li ñuy jàngale li ñuy xamal soxna yi loolu tamit défi la ndax li gën a siiw fi mu ne mooy programme yi ñuy jàngale yenn programme lay doon maanaam àggaguñ wala ñi ko def bariwuñ ci beral soxna yi seen programme bopp moo ne moo ne moo ne moo ne taxawaay yi bokkut de sa ñaari doom yi nga am dugal leen ci benn école ñu am fa benn diplôme bokk benn classe bokk kenn ku leen di jàngal jàngal leen benn programme moo ne suñ génnee de li ngay xaar ci ñoom du lenn kon jafe-jafe ngoog su fekkee nit ki danga koy da koy da koy jox loo xam ne da koy laaj leneen jafe-jafe la kon li ma bëgg a wax foofu mooy dañoo war a xoolaat li ñuy jàngal soxna yi am na ci loo xam ne mën nañ koo bokk waaye am na ci loo xam ne nag mbirum soxna yi la ñoom ñoo ko yelloo ñoom lañ ko war a jox am na ci loo xam ne mbirum góor ñi la soo ko joxee soxna yet duñ ko jariñoo kon loolu jafe-jafe la boo xam ne war nañ koo war nañ koo weesu niñ ko weesoo nag mooy ñu fexe ba xoolaat programme yi tëggaat ko bàyyi ci xel jigéen ak ni ko yàlla binde ak ay tabiaam ak nature am ak yi mel noonu Euh, tomb bi bi ci mujj mooy jeexit yi waaw suñu defee lii lépp nag daj yi ci soxna yi ba xamal leen yan jeexit la mën a jur walla lan moo ci mën a tukkee bi ci njëkk mooy am na jeexit yoo xam ne dafa aju ci wàllu diine mooy soxna si mën na cee xame ay àqam ak i warteefam ci wàllu diine euh, soxna si mën na cee am man-manu jëfe diineem ni ko ko diine sant soxna si mën na cee bokke bokk bu wér ci woote gi jëme ci yàlla waaye soxna si mën na cee bokke ci tasaare njàngaleem lislaam nit su xamut lislaam jàng ko du ko mën a tasaare sayyidatuna Aïsa boo gisee ma tudd ko léegi mooy dafa jàng diine xam ko doon bokk bokk gu am solo ci tasaare njàngalem lislaam am na am na xadis bu ñuy nettali euh, benn soxna bu ñëwoon ci yonent bi di ko laaj ci wàllu baax di ko laaj nan lay laabe ci baax ndeysaan yonent bi ak kersa gi ak soxna si ndax jigéen la rek xam nga jigéen ak góor léeg-léeg seeni waxtaan ci yenn tomb yi du day doy waar bi mu nekkoon nan laay laabe ci baax bi yonent bi ne ko xudi firsatan min miskin fa tatahari biha da wut rek benn kii wëttéen nga def ci misk rek nga nga soxna si ne ko kayfa atataharu biha nan laa ciy laabe yonent bi ne ko tatahari biha da ciy laab rek mu ne ko kayfa naka yonent bi ne subhaanallah tatahari biha loolu la tontu woon di ba tey mënta weesu tatahari biha sayyidatuna Aïcha xëcc ko ba mu dem fee ne ko te ay tatabbayi biha athara dami maam la yonente ba doon bañ a doon am ndeysaan kersak wax ko ko moom mën na ko koo wax ndax mbokkum jigéen xalaatal kooku tey su fekkoon xamut fekkut woon ñu waajal ko ba mu mën a joxe loolu nan lay def kon ngir wax la ne maanaam ñoom jeexiiti njàng mi day jariñ am na loo xam ne góor mënu koo wax rawatina bu dee soxna moroomum soxnaam moo koy moo koy leeral foog naa ku ci am doom ak loo ko jur jur bu dee jigéen li aju ci fiqhu nisaa dangay bàyyi sa soxna jàngal ko ko walla mu jànge ko ci magam ju jigéen waaye li néew mooy góor gu koy jàngal jàngal doomam bu dee jeexi di ci wàllu yar bokk na ci mooy jëmbët jikko ju rafet ak melokaan wu rafet ci soxna yi waaye waajal leen ngir ñu mën a jooxe mission bi yar ak jàngale bi nga xam ne lislaam da leen koo sant ci seenu njaboot ak seeni doom euh, waaye ñu mën a yar tamit mboolem koo xam ne pénc mi sant na leen ñu mën a taxawee yar gi junjoon naa ko léegi ci bi may mujjee wax su fekkee dañ koo sant mu jàngal yeneeni doom xam-xamam ak man-manam ak waajtaayam dana def jeexit ca la may jàngal xale ya waaye mu mën a sadd benn fra am na lu ñuy tudde benn vidde barab boo xam ne dara néewu fa te dara dafa naroon a ne waroon a ne mooy suñ demoon bay taqatle góor ñeek jigéen ñi ci njàngale na suñ amut jigéen ñu mën a jàngal jigéen ñi tàqale gu su sotti kon bu ñu bu ñu bëggee def benn réforme ab soppi ci wàllu jàng meeg yar mi daa am lu koy lal maanaam mënuñoo xalaat ñu ne dañoo bëgg a ubbib école te amuñ ay jàngalekat mënta nekk ñu ne dañoo bëgg a taqale góor ñeeg jigéen ñi ci njàng mi am nañ jàngalekat yu góor waaye amuñ yu jigéen kon ñun liñ bëgg xamuñ ko kon jeexit yooyu yu am solo la tamit nga aju ci wàllu yar bi bu dee lu aju ci wàllu pénc mi ak dundiinu nit ñi nag mooy soxna si mën a taxawe rek liñ ko sant moo xam muy yaay wala muy soxna wala muy ab liggéeykat bu jigéen buy liggéeyee la war a liggéey waaye soxna si tamit euh, mën a liggéeyal penc mi ni ko góor di liggéeyal góor ñi fi ñuy taxaw di liggéeyal penc mi soxna yi man faa taxaw liggéeyal penc mi waaye soxna yi tamit mën a am ñu ñu itibaar leen maanaam ñu ñu yëg leen ñu yëg seenu nekk ci biir mbooloo mi foog naa xam-xam ku ko manqué amoo ko waajtaay ya war ca yow defuñ ko ci yow mën ngaa nekk ci biir mbooloo mi te kenn du yëg na yaa ngi ci waaye am na loo xam ne boo ko xamee foo nekk ñu xam ne yaa nga fa euh, soxna si tamit seen njàng moomu jeexit yi mën a def ci penc mi mooy penc mi ku ne xam na ne bu fi mbooloo mi xamut bare baaxut ci penc mi kon wàññi limub ñi xamut ba tey loolu jeexit la ci jeexit yi aju ci jàngal soxna yi tam mën a jariñ penc mi waaye wàllum jikko yu yàqu yi ci penc mi jàngal soxna yi mën na ko mën na ko wàññi wàññi ko ci seen jëmm waaye wàññi ko ci yeneen jëmm yi nga xam ne ñoom dañ leen di jàngal jafe-jafe yi ak wuute yi nga xam ne day am ci biir penc mi njàngum soxna yi mën na koo lijjant de yaakaar naa ci misaal rek soo gisoon mbooloo mu jàng ak mbooloo mu jàngut fële yaakaar naa jafe-jafe yi ak wuute gi ca mbooloo ma jàngut lay ëpp bu dee jeexit yi nga xam ne dafa aju nag ci wàllu koom walla wàllu iqtisaadiya mooy euh, maanaam xeex ndóol walla wàññi ndóol walla wàññi ñàkk walla nit ki am man-man ci wàllu koom-koom mënal boppam ku ne xam na ne bari na soxna yoo xam ne seenum koom seeni yitte liñ koy faje ci seenum njàng la aju maanaam dañoo jàng am man-man yu tax ñu liggéey ci liggéey bu dagan bu leen di may koppar yu ñuy faje seeni yitte te loolu yaakaar naa lu baax la kon bokk na ci jeexiti jàngal soxna yi mooy ñu mën seen bopp ci wàllu économie waaye ñu mën a woyafalal ñeneen ñi nga xam ne séenub yan dafa diis ci ñoom ki nga xam ne dafa mënal boppam te xam-xam akub yaram akum njàngam ak formation man may ko ko ka ko waroon a mënal lam ko waroon a mënal day oyof ci moom te loolu foog naa lu baax la bu boobaa kooka day gën a mën a taxaw ci wàllu ci wàllu ci wàllu koom maanaam ci misaal su fekkoon dangaa yor soxna soo xam ne yaa ko war a defal lépp mu am lu mënal boppam la nga waroon a def ci moom tam mënal ko boppam mën naa dugg feneen di la yokkal am koom walla mu wàññil la yeneen coono euh, waaye nag euh, ci buntu boobu ba tey njàng mi xam-xam bi euh, waajtaay wi mën naa tax ba soxna si di am lii ma waxoon léegi waaye muy ci anam gu dëppoo ak lislaam muy nga am am xëy li ñuy tuddem xëy te looloo du lu baaxul yonent bi daf ne woon nag jigéen fa mu gënee jege suñu borom mooy su nekkee biir këram wax wa na fii na la alquran wax waaye loolu nag tëgtalewut ne jigéen dañoo araamal ci moom mu génn bataatan jigéen sañ naa génn dem sàkku ji lu lew waaye nag dafa am rek ay dawaabit lu koy tënk loo xam ne boroom xam-xam yi wax nañ ci ay wax yu bare bari am na ñu wax ne bokk na ca na am ndigal ci ci loola ci kilifaam maanaam bu dee jigéen soxna mu am ndigal ci boroom këram bu dee doom mu am ndigal ci way juróom waaye la muy jóg di yëngu ji na doon lu dagan dem di wutim xëy xëy ma na doon xëy mu dagan bu xëyee dem xëyeet xëy ma bu mu tax mu sànk walla mu sàggane weneen warteef wu ko gën a war maanaam xëy tëj sa kër bàyyi fa warteef wu gën a am solo fuuf fa ngay xëy loolu nanguwuñ ko waaye booy génn di xëyeet nga sàmmoonteeg teggi ni lislaam yi kon lii ay mbir la yoo xam ne xëy mi kenn bañu ko waaye daa am luy tax xëy war a am ak nu ñu war a xëyee looloot foog naa mat naa mat naa mat naa bàyyi xel kon lii lenn la ci jubluwaay yi tax ñuy jàngal soxna yi di leen yar waaye lenn la ci bu ñu ko defee ba pare lan moo ci mën a tukkee ni ay jeexit kon suñu doon tënk li ñu doon wax bi ñu tàmbalee ba léegi dañuy gis ne rek euh, jigéen daal wàccuwaayam ci lislaam dafa kawe lool moo góor daal ñoo def nii yonent bi dane woon an nisaau shaqaiqu rijal loolu mooy benn ñaareel bi ñu gis ne xam-xam lu am solo la ci société bi waaye lu am solo la ci lislaam lislaam da ko jox fullay boppam ndax moo mën a tax ba nit ki xam diineem mën a jaamu yàlla mën a dundal suuf si te looloo tax suñu borom andi ko fi ñu xam ne tamit xamal jigéen jàngal ko am na ay cëslaay ci lislaam alxuraan ñëw na ci sun na ñëw ci boroom xam-xam ji wax ci doy na ci seere rek mbindi Serigne tuubaay yi nga xam ne dafa fees dell ak lu mel noonu beneen bi mooy mën nañoo jàpp ne euh, njàngum soxna yi li tax mu am solo mooy da leen di dimbule bañ mën a sóobu ci dund gi dundug mbooloo mi waaye seen dundug bopp mën a taxawe taxawaay yi nga xam ne moom lañuy xaar ci ñoom waaye ñu xam ne ba tey njàngum soxna yi am na jubluwaay yoo xam ne yenn yi dafa aju ci nite gi ci boppam yenn yi aju ci diina ji yenn yi aju ci pénc mi yenn yi aju ci yokkute ci wàllum koom te yooyu yépp lenn lu ci ne mënta ñàkk ci dund gi waaye ñu jàpp ne ba tey njàngum soxna yi li muy am am solo am na lu taxaw suñ kanam nag bëgg koo xajamal te loolee luñ war a jàmmaar lool la ba jàggi ko ruum ñu xam ne tamit suñu sonnee ci soxna yi ba xam xamal leen liñ war a xam liñ leen war a xamal danañ ca góobe lu duun loo xam ne dana aju ci seen diine wala mu aju ci yar wala mu aju ci penc mi wala mbooloo mi wala dunduk société bi wala mu aju ci wàllum koom te yooyu yépp day dëppoo ak la taxoon ñu di leen yar day dëppook li tax ñépp taxaw mooy boroom xam-xam yépp taxaw ne wàllum njàngale dañoo war a fexe ba góor ñi ak jigéen ñi yem ci képp ndax ñoo yam ci société bi ñoo yam ca sunu borom mi nga xam ne moo leen bind te ne xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu assalaamu wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf waxtaan wi am na solo lool mel na ne leer na lool te matale na itam tomb bi nga xam ne moom nga doon waxtaane muy njàngum jigéen ñi mel na li nga ci waxoon lépp tënk nga ko ci ak tëj xëy na yegsi nañ ci waxtu wi moo tax duñ ci mën a jaaraat waaye li ci am solo rek mooy ñu bàyyi xel ne ni ñu war a jàngale góor ñi noonu lañu war a jàngale jigéen ñi daanaka bu ñuy tënk mën na li nga bëgg wax lépp loolu rek moo koy tënk mooy ni ñu war a jàngale góor ñi noonu lañu war a jàngale jigéen ñi ni ñu war a war a yittewoo njàngum góor ñi noonu la war a yittewoo njàngum jigéen ñi indi nga itam ci solo si nga xam ne moom la am ak jubluwaay yi ma am ak jeexit yi nga xam ne moo ci mën a jóge ak défi yi nga xam ne war nañ cee jàmmarloog moom ngir mën a jagal njàngum jigéen ñi kon noo ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax ci turu daairatu muxaddamatul xidma di sant mbokk yi nga xam ne ñoo doon teewlu bu baax di wax ne suba ak jàmm insha allahu taala danañ ànd ak yéen ci weneen waxtaan wu mel nii woo xam ne ñu ngi koy ànd ak Serigne Cheikh Mbacké Niang mu war a waxtaane lu jëm ci jumtukaay yi euh, euh, lu mel ne réseaux yi waaye jumtukaay yi nga xam ne moom la ñuy jokkoo jeexit yi mu mën a def ak li mu mën a yàq ay jikko ak jeexit yi ci mën a juddoo ak soppi gi mu mën a soppi doomu aadama Euh, lu ci aju lool la sëriñ bi di waxtaane suba ak jàmm incha allah kon noo ngi sant bokk yi nga xam ne ñoo doon teewlu ci MK TV di rajo télévision daayira Muxaddamatul Xidma ak mbooleem euh, lëkkalekaay yi nga xam ne moom la koy àndal ci internet bi di sant bokk yi nga xam ne ñoo fi teewoon ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد